asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla juddu Seydina Mohamed eh, lii nga xam te nii moom lañ taxawal nii di waa xale yi kër Cheikh maa mu tàmbalee ko ci suñu doyen Baka Sey Fallou man na dañ maa waxloo waaye moom man moom wax moom dama ci moom lu bari waaye wax waxloo nañ ma dinaa wax rek quoi si seen tur waaye li may wax ci seen tur laa koy waxee initiative bi bi ñu toogee eh, ma di waxtaan mu génn ci seen idée ku mel ni Alaaji ku mel ni Baka Fallou Siis ab lay kan ibre Sarr ñun dañoo bëriwul quoi mais ñooy toog Fall euh, ak Cheikh Thiam ak ñëpp rek ñooy toog di waxtaan ci nim gi maa ci lan xalaate xalaat bi nii waa ñun lan moo tax ñu dëkk Kër Cheikh pare te mënuñoo apporter dara waa Kër Cheikh gars yi mais kon na leen xool benn loo xam te ne mën nañ ko def fii ci Kër Cheikh ñu daal choisir lii quoi mais nag bi ñu ko choisir ba pare ñu ànd ceeg magu Kër Cheikh yi ñëpp jàpp nañ ci bi ñu jógee premier jour dañoo def charité bi mu demee mu dooleel ñu nii li ngeen def. defu leen ko kenn mën mi ngeen koy defal ñu juge ci moom mu yabal ñu ci ci laa Diop mi nga xam ni moom moo moom mooy président Arc moom it bi may ñu fit ni lii ngeen def defaloo leen ko kenn mën mi ngeen koy defal te Arc Cheikh ngeen koy defal daal di yëkkati alalam ni am maa tàmbalee lii woo bakka ne ko bakka maam ne ko lii maa ko tàmbalee ñuy ay mag yu baax ay mag yu neex a wéeru ndax ñunu ñu buñ ko commencé woon dem ci ñoom ñu tiital ñu kon du duñu agsi fii mais vraiment ñoom ñoo ñu jàppale ci lépp ñu leen di sant di leen gërëm lii nag dañoo tàmmali rek mais ñaan nañ yàlla defal yeneen édition yoo xam te nii mën naa bokk ak mën naa nekk beneen facette bu dul bii euh, yoo xam te nii lépp rek mooy jëmale kër Cheikh kanam ndax ñun lu jëmale kër Cheikh kanam rek ñun ci lañ ñu dox ci lañ bëgg a nekk incha allah di ñaan yàlla defal lafal ñu cat lépp luñ ci def yàlla barkeelal ko ci barke Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa ñoo ngi nuyu jataay bi bu baax man Mbissane Sow laa tudd eh, teewal fi aar Kër Cheikh. ci turu Serigne Cila Diop ak ci turu Serigne Cheikh Diop chef de quartier mm-hmm. ñu jël kàddu ci seen tur waaye ci aar Kër Cheikh kooku it ma fekk goo ko fekk Serigne Sidi Fall mi ma dendal di membre de bureau di kenn ci waa aar Kër Cheikh. ba ci Bakka Dieye nga xam dem ci yéen la bok ci initiative bi bok ci initiateur yi moy membre de bureau Aar Cheikh la. Bakka sey moy membre de bureau Aar Cheikh la kon ñu ngi jël tur ñu ñom ñep ci seen tur di rafet lu baxalat bi di nuyu ba Cheikh ndoy mi nga xam ni suma xarit la suma rak la ñu seq dëkk bi cheikh lepp cheikh rafet mo and ko cheikh yalla yi nga xam ni lu bax ñanga ca. te leneen lu du baax doo leen ci gis ndax ñu ca yàlla na yàlla fay ñu ñëpp. seen chef chef de quartier nee na ak président ci laa ak mboolem ko wokk aar Kër Cheikh fu xalaat bi mën a juddoo ci Kër Cheikh aar Kër Cheikh ngeen ko defal ndax dara taxul ñu boole lu jëmee suñu gox kanam dara taxul ñu boole lu suqali Kër Cheikh dara taxul ñu boole lu am ay xalaat ci biir Kër di ko indi. kër Cheikh bari na grand place yag na amé grand place way seen grand place bi limu jur ni waa grand place bu ko jur ndax yooyu seen ndaje bi du nen du nan atay rek mën fa dajale ak di waxtan ci yu amul ben njariñ amul njariñ njëkk bi ndekete yeen fa ngeen tok yeen ngi nosé di nocci xol lu nuy mën def ba jëkk bi mën jëm kanam ci fan nga mën doon ab dekk nak ku ko bëgg mu jëm kanam ci wir gu yaram ngay njëkk waaye wér-gu-yaramu dëkk nag nga tambalé ci ndaw ngi tambalé doon ay goor mag ngi nenan ki def ki dugal néegu góor ki la sampar lu mu ne la bëgg na dëgg maa ngi nenaan ki la dugal néegu góor jàngal alxuraan takkal soxna lu mu la wax sa àdduna bi yow nga gëm ko ndax fa la fa di tàmbale fa doomu aadama di tàmbale doon nit ci kaw suuf mala amul lii moo tax nit gën a tedd mala kenn du ko defal mala te dañ nit kon tedd ngay nit ma nga ëppalee tedd ngay mala ci la ñuy defal nit te kenn du ko defal mala kon loolu ku la ko defal moo doo tàqale doon mala ndax ku ko defal ko ne ba nga màggal ko yaa ngi mala yem li mala mooy li ci yow kon loolu yi lu ñëpp rafet loolu tax di ñaan yàlla mu jëm kanam ñaan yàlla fesal ko ngir ñi ko daaw def def ko. ak ñi foogoo ne kenn mënut a def lii wala lii mënut a sotti ñu xam ne lu mën a sotti la. te su ngeen xalaatee waxtu bi ngeen ko xalaatee ak bi mu sottee koo nga xam ne rek tey xàcc rek moo fi des waaye yàlla door ci temps bu ngeen ko xalaat ci mu des moyens très maigres nga xam ne génn leen localité bi panel bii ñu bokk Cheikh jaaru ci avant ndax bañoon moo am yenn yenn tournure yi. bañ mam yenn tournée ak yeen dimension yi mo wara sax nan nañ bloqué information bi ba mu sotti ku yek soko yek Sidi Fall mi limi bokk bokk ar kër Cheikh suma lako yek à travers le panel bi ma ko bakkee xam ne nii lañ ko bëgg na ko fekk ci lañ ci kon na na leer ci lolu mais li ci ëpp solo may initiative à risque la parce que dafa am ay facteur de risque facteur juridique mi ngi ci ay facteur sanitaire mi ngi ci facteur social mi ngi ci parce que localité bi dafa am ku fi état tek mu charger lépp lu jëm ci walu paj gi mooy lycée ñu nekk ci zone am kon war a fee faj kenn maa nga fi def lenn loo xam ne ci la jëm te yëgu ko joxe ci accord parce que moom mooy assurer suivi bi il a la charge de notre situation sanitaire heureusement pour vous ñoom ñu dem contacter ko waxtaan ak moom jaar ci borom dëkk bi waxtaan ak moom jaar ci kilifa dëkk bi waxtaan ak ñoom jaar ci kilifa yi nga xam ne kon ko na gaa dara waxtaan ak ñoom kon loolu su amee wax dëgg fa yàlla damay xam ne yéen teg ngeen seen tànk fa nga ko di sant di gërëm it sëñ Fall bi nga xam ni moom ngeen toog buntu këram muy kilifa diine di borom kurus ñu ku ne xam ko ci bëgg yàlla di wut yàlla wuttatu yàlla nga toog buntu këram wax ko loo xam ne ngërëmal yàlla nga ci du yem sax ca nangu ko waaye da cay jëf kon sëñ Fall bu ñëwee ni lépp loo xam ne mbubb njulli la xale yi war ko sol maa koy def ndékki li nga xam ne ñooy pajkat yi wala ndékki ak ñi fa fekkee moo ko def jël alalam tàbbi ci jël jëm mu indi ko sëñ bi loolee wane na ne lu baax moom ndekete bu ci kenn xaar kenn kenn xar kenn ci lu baax ndax lu baax ñëpp ko bokk kon yàlla na yàlla fay ju léegi nag ci turu aar kër seex mboolem koo xam ne waxuma la sànq jël sa alal def ca waaye dégg nga ko bëcc na yàlla na la yàlla fay Cheikh yow dégg na sa taxawaay yaa nga ngent ci suba dama ne man dafa am loo xam ne moom laa gëm action citoyen laa gëm kon bépp situation ak coloration boo mën a duggee nag man a ngay citoyen da nga agir en tant que un bon citoyen dëkk ak ci gox bi bokk ci gox bi gis initiative bu rafet nga ne damay doo tabbi ca ni ci imam bi tabbee ni ci sëriñ bi tabbee ni ci le pharmacien la indi ay garabam dëkk ak ñun ci kër Cheikh mm-hmm. am pharmacie ci kër Cheikh doy na sëkk mu jël ay comprimé jël ay médicament ak ay conseil indi ko dool ko ñoom xale yi mm-hmm. ne ko ñooñu defee noonu nga defee mm-hmm. kon ku ne jëf nga ko ne na la yàlla fay ñu daal ñu ngi leen di remercier surtout turu aar kër Cheikh gépp kër Cheikh nag mi ngi ndab la loo xam ni raxas nañ ko am set ku am loo yekkal kër Cheikh indil day sombi nay cere nay ginaar suñu ñëw ci waaye ku am ñam ngoo togg te mu sell te ba ko yëkk kër Cheikh dina la accueillir dikk leen daf dana def nga xawaay doom doom kër Cheikh jariñoo ko kon loolu initiative boo xam ne na leen wóor ni en amont et en aval on remercie tout le monde yéen itam vous les initiateurs gàcce ngalaama gàcce ngalaama parce que jëf fi nga xam ne yàlla tax ngeen di ko def may sell ga ndax kenn kenn xamul sa xolu morom waaye la xam ne lii yàllaa tax mooy ba sellee ñàkk sell gi nga xam ne yàlla taxut kon le seul indicatif bi wane ni jëf ji ndax yàllaa tax ak yàlla taxut mooy sell ga bu sel rek yalla tax bu selul yalla taxut sel gi mu sel nak moy ñangal ko ba tambali ci sen man-man bop ci sen moyen bop avec peu de moyens bi ngeen am ak sen collaborateur bop yi ngeen am ak sen partenaire bop wane li lu sel la te ken gis sa bop gis ba ko ñew dara wane ma ni ñi fi ñew ay bul sol sol ñi ay tiet kon ken bu ko wane sa man bi ma laaje ken ana ngit mo mbàkke dara ma amul njiit amul njiit amul kenn gaañaa ngi nii kon yalla na yalla fay ñep kon da ci turu ar ke Cheikh ci turu jigen ñi nga fekk ñi suñu ñi ngi ak sing ñom soxna xuje gas sar ñoom soxna maam Sey Sarr léegi la fi kii jóge kon loolu ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax aar kër Cheikh it bi ñu ko déggee dafa am solo dafa da cee lool ba tax na euh, Bakka donte maam de biringo ci turu Tira Diop ak bureau bi léegi lañ constaté wu gisewaat ñoo yëkkati enveloppe bi tàbbal ko ci liggéey bi ngir ñàkkul ni am ngeen ku nga war a yeewi wala ñàkkul garab gi nga war a gën daal doole ko ci garab yi maa ñàkkul ndox mu ngeen war a gën ndox jox ko nit ñi naan aar kër Cheikh ñoo yëkkatiwaat enveloppe bi ginnaaw ba ci laa job jëkkee defee ko ci liggéey bi ngeen jël ko incha allah kàttanu yàlla dolli ko ci liggéey bi te xam ne aar kër Cheikh daal ta ànd naa ak yéen ak kullu ku mel ni yéen ak kullu ku mel ni yéen mooy tëjee kàddu gi cant gi sëñ Mbacke Fall mi nga xam ni ci ëttam lan ñëw mu joxe këram nañ ubbi leen néeg yi ñëwul boppam ba fii ne dama am fu fii laa njëkkee kër gii sëñ Modou Moustapha Fall lii la bëggoon ba tax mu sañ ko moom mi ko teg ci loo xam ne lii la ci bëgg kon bi amee xalaat bi indi ko ci këram moom da koy accueillir ñëw na fi ba ñaanal njulli yëpp ànd ko bas kan alxuraan fekk fi pharmacien bi fekk fi infirmier bi fekk fi sëñ Fallou fekk fi ci laa jóob ñaanal na ñëpp wal na ne moom mbégteel na ci turu mag quartier bi yëpp kon na yàlla na yàlla fay ñu leen yàlla na yàlla yëkkati ñëpp seen seen tawfeex ñu ngi ci ñu ngi leen ci gën a remercier di wàcc suñu kàddu ci mbooloo mi la lu ci desee jub man mii mbisantaw xaj na maa ñàkk xam nu ko yëkkati ba yëkkati ko waaye une de plus ñu ngi la bu la neexal ne ngent laa dëkk maa fekk dafa ñu ko ngent du ma waaye askan wi la ñor citoyen yi ñoo la ñor population bi ñoo parce que politique mooy la gestion de la cité mooy politique gestion de la communauté mooy mooy kon yow bu la yàlla nga am ci ndombal tànk la accueillir en tant que citoyen bu gis initiative bu rafet ni nga jël so ñak tabal ci bir lolu ñu def mu action citoyenne bi yalla na yàlla fayal ñu la alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu wa kër cheikh yëpp di ko jaarale ci ar kër cheikh di nuyu ñu fi tew ñëpp ak ñi nga xamanteni ni ni ñom la seen doom nekk ci bir ñi ngi nuyu ñëpp di balu ak ñep waye di balu ak ñep di ñaan yalla ñu teewe ko déwén yu bare bare Euh, di remercier tamit waa Grand Place bi nga xamante ni bii ni ñoo am initiative bu rafet bii tey dugal néegu góor ay lim bu takku ci ay xale yu xam ni nekk nañ ci biir kër Cheikh ca soxla ko donc ñu ngi leen di remercier bu baax di leen ñaanal yàlla lu ñu man ren yàlla nañu man déwén lu ko ndax wax dëgg yàlla dimbale nañu ay parents yoo xamante ne bii ni peut-être bëggoon nañu xarafal seen doom ca moyens yi mayu leen ko kon ñoom bu ñu jëlee initiative bu mel nii def ko ci biir koñ bi ñun lañ ko defal ñun ñi nga xamante ne bii ni ñun ñooy parent yi nga xam ne ñoo ko waroon def kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñu teewee ko déwén yu baree bari ca bu déwénee ñu man lu ëpp lii ñu def xale yi nga xamante ni bii ni tamit ñoom lañu dugal néegu góor ñuy ñaan yàlla ñu génn ci jàmm yàlla bu leen fi dara dal yàlla nañu dugg ci jàmm génnaat ci jàmm ñu fekke ko ca tal ko bu déwénee ñu man leneen lu raw li jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Kër Cheikh maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu initiative bi di tijjee suñuy nuyoo. ci délégué de quartier bi Baye Cheikh Diop ñaan yàlla gën ko taxawal bu baax a baax di nuyu suñu papa suñu formateur monsieur Cila di ko ñaanal mom tamit di nuyu wa arker kër Cheikh gépp maanaam arker ñu mom, aar kër Cheikh moom bàyyiwuñu bàyyiwuñu kenn dañuy ndar keppee bi di santaat bu baax a baax suñu wasila suñu kilifa suñu waajur suñu Fallou Dieng moom ku xam suñu diggante ak moom xam ni mooy suñu lépp ci lii nga xam ni boole nañu ci euh, Mbisaan waa waa grand place bi ni nga koy waxee mm-hmm. euh, grand place bi lii boolewuma ak ñoom mm-hmm. ñoom dama bokk ci ñoom mm-hmm. mu doon grand place boo xamee ni tey ku ku xam samay activité xam ni semaine bi bu dee maa ngi cees au minimum cinq jours yëpp ci ñoom lay añee muy kër sëñ Fallou falaay añee doon grand place boo xamee ni diirub li ñu fay toog yëpp mosuñoo dégg ñuy dugg ci lu seen yoon nekkul wala ñuy wax ci mbiru nit mhm. luy avancé loo nit rek la ñuy wax beneen remarque bi nga xam ne def naa ko ci grand place bi mooy que ni fu waxtu julli jotee arrêté nañ li ñu doon def bu ñëpp demul julli it trois quarts bi yëpp dinañ dem julli ñu sama classe gi ak Ablaye Kane ñoo fay nekk <laughs> suma frère là, wallahi on partage tout Batai école bii ñu bokk muy académie Dabakh Malik. ñoko ko tijjeendoo te mën nañ ni idée de départ bi ci grand place, grand place bi la jóge kon grand place bi dafa nek point de départ euh, luy sos lu bax seigne Mbacke mi ñu défé li kërëm tamit da wone rek dimension bi mu am ba ci école bobu may wax académie Dabakh Malik bi ñu koy samp euh, ay goudi jaxlé won nañ lool waye bi ñu ko woowee motivation bi mu jox nañu dem len foncer vous allez y arriver L'initiative na ci li gëna tax académie donc initiative bu ont su relation ak mon Ablaye gën ko taxawal ba au niveau de Albert Royer bi amal ma collaboration

Euh, suñu position ci biir commune bi samp nañ suñu ndënd ci biir commune bi di ñaanal jàmm tamit ñëpp ñu samp ndënd ci seen ci biir commune bi di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax mais action yu mel nii ku nekk ci ñun boo amee chance ñu associé la ci rek da nga ko war a tenir à bras donc euh, maa ngi santaat bu baax waa Kër Cheikh gépp di ko jaarale ci mouvement aar Kër Cheikh ci liñ ñu associé ci lii. di tabbi tamit ci occasion bi di ñaanal xalé yi ndax lu nekk ngi ci seen biir ñu ngi soxla futur président de la république mi ngi ci seen biir kon kuy lebal rek lebalal lebalal xalé daal euh, li ñuy li ñuy ressentir ci suñu xol vraiment mënuñu ko traduire dul di di sante ci boole bi ñu boole ci lii. di lancer un appel aussi à toutes les bonnes volontés à tous les acteurs politiques de la commune ñu ñëw jàpp ci lii. ndax euh, suñuy njaboot lañ ko defal suñuy doom lañ ko defal suñuy jarbaat lañ ko defal di gën a lancé waat appel mouvement bu mel ni aar Kër Cheikh nit ñi gën leen taxaw et cela en dehors de toute obédience politique. parce que lii la ñuy xaar tey ci population yi lii la ñuy xaar ci doomi gox bi di ñaanalaat sama waa jotaay bi ñoom paate maa leen di ñaanalaat bu baax baax seen ànd bi yal na ko yàlla gën a saxal yal na ko yàlla yal na ko yàlla gën a dëgëral ba xale yi tey di ñu yóbbu màkka di ñu jëndal ay oto di ñu tabaxal ay kër di ko defal ñoom tamit seeni doom waaw ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di profité ci occasion bi di masawu ñëpp ñi nga xam ne loru nañ ci inondation yi xam ni taw moom day indi xéewal waaye aki mbiram ñu ngi leen di masaw bu baax a baax di lancé waat appel aussi aux autorités et aux bonnes volontés ñu taxawu ñi nga xam ne aussi yàqule nañ ci inondation yi bu baax a baax di ñaan mbas mi yàlla nako fi yalla jele yàlla nañu yalla yàlla na yalla xare aljana ñep ñi ci loru di ñaan aussi ñun yàlla nañ bok ci ñi koy netali assalamu alaykum wa rahmatullah